mun nu nak am mbégte si sen téway pour ñew ngeen and ak ñun nu lancer officiellement euh, marché spécial communication au marché spécial fruits et légumes nous koy woyé tabaski du mine xam ñep xam ngeen nak tabaski dafa nek fête bu euh, bu spécial ci Sénégal nga xamné ne njaboot yëpp dañuy dajolo nek ben mu nek moment bo xamné dañuy bolé sen xol boole seen xalaat njaboot yépp dajé mu nek fête bu am solo moi, tax nag occasion la pour fête boobu sénégalais yépp nu daal di xool fu amee euh, ndugg yu baax yu sell ci qualité bu baax waaye nu am ko tamit ci njëg yu yéwén moo tax nag nu loolu boobu nu ko xamee nag nu ànd liggéey ak société ak pakaaw bi nga xam mom mo dimbalé dimbale société coopérative nous nu daal di taxaw mais and seeg également ak agence de régulation des marchés

boole ko directement à consommateur bi xam ngeen producteur bi dafa daan ñëw euh, intermédiaire bi demi grossistes détaillant doog a dem si consommateur bi ñun nag exceptionnellement euh, marché bi nga xam ne pour professionnel la waaye feet si dañuy exceptionnellement ubbi marché bi pour permettre intermédiaire yooyu yëpp nous dindi leen consommateur bi ñëw jënd direct si nga xam ne fa le produit bi du jugee te mënta nekk lu dul lu yomb lu baax si ñoom euh, pour nag président lan la digle nanu jël point de vente xar nu daal di koy def ci marché bi mu gunge euh, point de marché fruits et légumes bi